ça va. Linguère sauvé na. Hmm? Linguère sauvé na. te nga wax seen. alhamdulilah rabbil alamin <laughs> Fatou Diouf nuyu naa la. ma yëpp di leen bëggee bu baax a baax on a pas assez de temps. Hmm. waaye dama leen di defal biographie am tuuti ngeen xam ko rek il se nomme Bekar lan moo tax ñu koy woowee Bekar. Hmm. artiste variété la mi ngi jógee Thiès. waaw day jouer toutes les nga xamante ni euh, Mbour sali fépp lay jouer ba pare di cartonné bu baax wolof Ndiaye rek dafa am benn baat bu mu wax Kéba loo xam ma demba ma demba gën laa xam boppam il est venu Béccar balaa ngay nuyoo ak yi musicalement loo ñuy indil. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyoo. salaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyoo salaamaaleykum am jàmm ngeen yeewoo ndax jàmm ngeen yendoo am jàmm ngeen yeewoo ndax jàmm ngeen yendoo yal ngeen ko fanaane. amiin benn benn. am jàmm ngeen fanaane lu tax xar kanam yi lewet bëgg gént bay gisaane li la mi ngi sa wet ndeysaan yeewu jàpp julli ñaan ci buur xéewal taw ni nawet jaboot gi bekk lekk ba suur mën a sañ séema rafet an jàmm ci la lépp xañ kon salaamaaleykum nuyu naa leen fexal sa xol lépp rafet fàtte stress mu la tax a sëngee yeah am leen jàmm waay na ci wér toog te foo fekk sa waay ne ko salaamaaleykum. waaleykum salaam wa taalaa wa barakaatu. salaam. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. ñu ngi bu baax nuyu ñoo fekk ci plateau bi yëpp. ak ñi ñuy seetaan. waaw sama tonton Aliou moom xam naa ko bu baax. waaw. foo xamee. ah, ah waaw. fii laa xamee. woo ko fii. nga wax moom xamee woo ko. fii laa ko xamee. man xam naa. Ah, yow ni nga ko laajee seetaan ñëpp. xam nañ ne xamee woo ko. laa ko xamee. déedéet non wàllu fa laa xamee. ci biir wax xamee. la tamit nag bàyyi. dañuy échanger lu bari ak moom. ah voilà tu as vu. waaw mais ne da da nga ma laaj ne ma. kii Moussa ñëw ko ci déjà. waaw waaw ma nekk ne ma oui sama di nuyu. ñu lay fay di nuyu ñu ñuy seetaan fi mu jógee benn dëkk ñaari gaar. waaw jaajëf kontaan naa ci invitation bi Pa Ousmane. Bec mooy la. Bekkaar c'est euh, man Bekkaay laa tudd déjà. définition bi foofu la jógee. Bekkaar bon bu ñu nee Bek pour peut-être am na définition yu bëri mais la bouche de l'artiste xam nga Bekkaay l'artiste. en quelque sorte loolu lépp mën nañ ko définir Bekkaar. tey lan moo tax nga choice musique variété. bon parce que je pense que ni variété mooy musique ñun boo boo xoolee tey ndaa naa ni yi fi nekk yëpp Sénégal jaar nañ ci variété variété mooy musique boo xam ni. bon foo foo dem ci àdduna da nga ko fay fekk te mun nga mun nga mun nga ko yóbbu amul sénégalais bi amul amul amul camerounais bi amul nigérien bi amul français parce que boo demee booy boo ñu nee variété rek c'est parce que ay musique ay sonorité yoo xam ni c'est c'est des c'est des yoo xam ni c'est des chansons standard lañ koy wax. Mhm. par exemple foo dem ci àdduna bi. bon da nga fay fekk ñuy jouer comme par exemple benn morceau Bob Marley boo xam ne standard bi. Mhm. foo dem ci àdduna bi noonu lañ koy jouer donc bon ba pare dafa riche quoi variété mooy dangay ngay dajale lépp moom la ñuy wax mu wóot musique mooy lépp ngay def amul loo bàyyi mhm. waaw day da lay gën a yokk connaissance loolu musical waaw voilà dina dina dina la gën a dina la gën a may lu bëri mhm. bon parce que tey jii boo boo bu fekkee da nga jël xeetu musique bu nekk peut-être da lay yokk rek quoi mhm. waaw techniquement day tax nga gën a nga gën a pare ko en quelque sorte tey jii bu ma ne la woon deuxième morceau bi ñu may defal muy nekk variété loo xamante ni xam naa Cheikh Tidiane Gomis déglukati musique la Fatou Diouf déglukati musique la. man mhm. aussi déglukati musique la. Aline Sow la aussi la même chose ban nga ñuy indil. yan laa lay indil parce que benn morso benn morceau laay joué mais dinaa ci way peut-être mën naa ci way ñetti ñetti chanson yoo. xam variété. waaw variété waaw ak ay dinaa génn fii après ñëwaat Sénégal nañ dem. the Lord for me. Down just follow my lead. I found the girl, beautiful and sing. I never knew you were someone waiting for me. I just kiss when we in love, not knowing what else I will not give you. Just time, darling, just kiss me slow. Your heart is all lion, and in your eyes, you're divine. baby I'm dancing in the dark yeah. and you between my arms bed for on grass listening to your heart baby song when you say you love to me I will surrender my breath tell you boo koy jëleeti bu ma bëggee ni yow asman foo koy jëleeti ndeysaan ku la fonkee moom ku yeewu xaaja ku di di xool ndax sangu nga ku lay wax dëgg joobu ku la dégg ni man ay waaw ku nekk ak fa la bur bi yàlla féetale te muy dëgg ak fa bëgg sa bopp féete waaw ayda yaa bite béy béy béy léelée ay da foo koy jëleeti moo koy jëlee waaw waaw foo koy jëleeti nday bay bi la soppee ni moom foo koy jëleeti madam ñëpp nañu daw wala fii ndeysaan nga wéetoog sa problème waa naa jaññaar wul daw ay da yow mi xolama ñi ay fii ne ba léegi loolu yàgg na suñu seetaan ku leen ñee ak ku leen xeet ku leen xamal ak ku leen tàllali baaraam teyel bàyyi oo oh yow Passeman loolu daal la ñu may wax ndeysaan ma ni jamono la wala wërsëg la en tout cas merci beaucoup amis téléspectateurs de la voix des sans voix jàpp leen turam bu baax il se nomme tout simplement Bekar from TH Thiès nag la dëkk benn dëkk ñaari gaar dëkk la boo xamante ni macha allah Fatou Diouf dafa mën a meññ ay oh, artistes comédie ah dafa bëri ay yaa ngi tax muy kii xam nga moom moom waa Thiès oh même Bintu Fall Bintu Fall Thiès waas la mais Thiès eh, eh, eh, la musique à Thiès comment ça se passe ah, waaw ça va sant alhamdulilah <laughs> bon on gère daal mi ngi mi ngi mi ngi dox. Mhm. mi ngi dox ndax tuuti tuuti. Mhm. waaw musique bi. bon waaw sant yàlla. fii Sénégal mi ngi dox kon yow yaa. non à Thiès non pas que ni mi ngi mi ngi mi ngi dox peut-être. xam nga musique moom ak loolu lépp loo mën lu mu mënti doon ci àdduna rek. ndànk ndànk la lépp lépp dara xëyul sotti. kon daal yow am nga yaakaar daal que fii ak ay euh, euh, ay ah, ay. bien sûr ay at daal dina dox dina dox bu baax. ci kat ak ci kàttanu yàlla. ci fan nga ko teg yaakaar naa ci fan mooy ci gëm-gëm rek. lépp looy def boo gëmul ni tey jii suba mën nga ci réussir wala mën nga ci sori bàyyi ko. waaw d' loolu gëm-gëmu loolu gëm-gëmu nit ki la dama ne. Mm-hmm. Mm-hmm. développement laa wax. musique u Sénégal. dama ne est-ce que tey jii à Thiès mm-hmm. tey jii est-ce que les musiciens wu Thiès yow mi nga bokk ci est-ce que tey foofu musique baa ngi dox est-ce que euh, maanaam euh, yéen a ngi ci yéen a ngi ciy gis seen bopp. bon je veux pas dire que ni mi ngi dox à cent pour cent. Mhm. loolu moom du ma ko wax. Mhm. bon mais tamit ñi ngi ñi fa nekk am na ci ñoo xam ne du ñëpp. Mhm. mais ñi ngi jéem teg ay affaire yoo xam ne tey jii ñu ngi jéem a propulser seen i seen i seen i seen mm-hmm. buñ ci gisul seen bopp à 100 pour cent tamit ñu ngi ciy gis seen bopp tuuti tuuti. waaw parce wax Thiès aussi Massaane lañ daan wax. ak Seka bu Thiès waaw jeex na. Mhm. avant ça jeex na. déjà waaw dëgg la ñoom ñoo fa nekk les euh, ténors ba tey. waaw ñoom ñoo fa nekk ay musiciens yoo xam ne peut-être xam nañ leen. Mhm. peut-être ci ci ci àdduna bi fépp. Mhm. mais am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci yoon bi comme ay jeunes talents lañ. donc li ñuy ñaan rek comme comme moom li mu wax. mooy peut ñu gën ñu ñu gën ñu jàppale waa Jeeba Ceesuwaa la. Ceesuwaa la mais peut-être peut-être Ceesuwaa boo xam ne tey fala dëkk fa la juddoo mais peut lépp moom fii la koy defee quoi. waaw contrairement. ak ñun ñi nga xam ni peut-être ñun ñoo fa ne tey jii boo ñëwoon. Thiès fooy tëgg foofu Thiès. moom damay joué tous les lundis Sams Prestige. d'accord damay joué foofu tous les lundis. Mhm. waaw maa ngi fay joué after mhm. bon de zéro heure à deux heures du matin tous les samedis maa ngi nice time. mais lan moo leen manqué foofu yow euh, artiste su Thiès yaa ngi koy wax ku leen kii lan moo leen manqué pour ngeen mën a euh, maanaam jóg. waaw déjà Thiès moom bon. jàppale bi moo fa des lu bëri bëri bëri. ci côté autorité bi. waaw moo ci côté autorité yi. Hmm. waaw jàppale bi ci war moom amu fa ci artistes yi parce que je vois am na loo xam ne dama koy décliner tout le temps foofu noonu dama koy wax. Hmm. mooy tey jii par exemple événement yu mag bu fa amee. Hmm. ñoom au ñu ah. jël seeni musiciens yi dëkk seen région ci région bi dañuy dem jël benn dem Dakar jël benn koo xam ne peut-être siiw na mhm. nit ñi ñu ngi koy dégg ñu fay ko ay million indi ko fa au lieu que ni am na foofu Cees ay jeunes yoo xam ne tey jii mhm. ñu ñoo dàq li ñuy def fuuf mhm. tey jii ñi nekk fii nii ak keneen ak keneen mais au lieu ñu may leen chance leen duñ ko def mais même région yëpp la ah partout au Sénégal waaw waaw waaw noonu la demee ah, nag te loolu nag moo dul yoon parce que Euh, ville bu nekk moom moo war moom moo war a jàppale ay artistes ak nu mu mënti ak artiste bi ak nu mu mënti demee ñoom ñoo ñu war a ñun jàppale mhm. ñoom ñoo ñu war a wane ba tey ñu ñu ñu ñu ñu mun ñu xam quoi waaw mhm. par exemple boo jëlee sax benn artiste boo xam ni bon déjà bon c'est un artiste connu mhm. mais nga jël benn artiste boo xam ni tey jii Thiès la dëkk comme tey jii nga war fa indi par exemple benn benn Pape yaa waaw nga jël benn artiste boo xam ne peut-être Thiès la dëkk nga ne ko mu ñëw jouer ko premier partie mhm. parce que nit ñu koy seetaan bëri nañ mhm. bon dina am public bu bu large bu fa nekk dinañ gis benn dinañ découvrir découvrir benn talent boo xam ne typiquement thiessois mhm. bon en tout cas général bi nekk fii ci kër gi nee na mu nuyul ma sama frère général DJ Maxu aussi mi ngi lay seetaan ñoom ñëpp ñu ngi lay bàyyi xel émission bi nag temps bi gàtt na mais on a on doon laaj Bekar lan mooy ay projet lan la bon déjà waaw man maa ngi maa ngi préparé sama sama sama sama album. Mhm. donc maa ngi ko commencé enregistré déjà defagum naa ay titres yu bëri. waaw donc ci loolu laa nekk déjà actuellement moo gëj naa sax génne génne ça fait presque six mois bon génnewu ma génnewu ma dara parce que dama nekk concentré wu ci sama ci sama projet boobu noonu. Mhm. waaw projet boobu ko yàlla génn ak jàmm. tey jii wàccee Thiès si lay seetaan xam ni last word bi comme ni ko gars yi di waxee. Mhm. lan lay nekk jëm ci ñoom dernier mot bi. waaw waa Thiès moom bon man moom Thiès moom dama leen di dama leen di gërëm di leen sant parce que tout le temps bon ñoom fu ma tëgg dañuy ñëw di ma seetaan di ma di di ma jàppale di ma di ma encouragé waaw di ma encouragé ci lu bëri Thiès waa dafa gëm dafa gëm doomam dafa dafa fonk doomam mhm. donc ñoom tout temps peut-être bu bu bu dul ay moyens financiers tamit ñu ngi ñuy jàppale mhm. parce que ñu ngi ñuy conseillé bon di ñu seetaan si duñu ñu encouragé loolu rek c'est c'est quelque chose waaw ah, déjà maa ngi maa ma ma de passage maa ngi nuyu sama sama sama sama sama manager Gallo ah Seydina bon sama waa kër tamit sama mag Adja kooku mënuma ko fay ndax fépp fu ma toll ci musique tey moom moom la parce sama moo ma ciy jàppale bu baax a baax a baax. Seydina en tout cas merci. Euh, temps bi mm-hmm. xoj nañu bu baax a baax ndax beneen émission baa ngi nii taxaw di mm-hmm. xaar. Seydi Barham tamit fàttewuma la Seydi Barham waaw. sama waa ji ñu ngi koy ziar bu baax a baax yaay mami. maa ngi bëggee Aïssata Ba ma ma ma sœur elle me regarde depuis Rufisque Aïda aussi maa ngi koy ziar nga xamante ni moom it projet bu mag la am fii au Sénégal mm. à si yeeg yooyu yëpp day ñëw incha allah fu mu war a nekk nag di première au huit fii ci Sénégal break dance ñu indiwaat fecc <laughs> break dance indiwaat ay batal indiwaat ay roller yooyu yëpp dafa war a am Sénégal pour une semaine donc ça montre que ni mi ngi commencé mm-hmm. DJ euh, Cheikh Diane dama bëgg na nga ñëw ñu wutal la roller jàngal la roller ndax moom mi nga gis mi doon toog ne yooyu lay def donc festival bu mag la fi def fii au Sénégal te incha allahu rabi naa la présenté ak moom ngeen dem ànd ci ñu feccaat break dance yi ay fàttali ko break dance waaw yooyu yëpp daf ko bëgg indiwaat ñu wër quartier Dakar yëpp def fa ay break dance def fa ay roller def fa lépp moo tax événement bu rëy rëy la yàlla na ci dugg ak jàmm mu génn si ak jàmm léegi nag mbokk il est temps de se bàyyi bàyyi musicalement lan nga ñuy tàggoo man ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp dama leen di may dernière waaw man maa <laughs> Mhm. di jaajëfal ñu ba bàyyi en beauté donc monsieur madame euh, euh, euh, bi donc Beka donc terminé di jaajëfal bu baax ñu nekk ci technique bi ci kanam tuuti rek ñu bàyyi leen équipe Sap Sap ak équipe Mamadou Bité ñu bàyyi Beka Sap Sap